mbokku site internet Adouna Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar li gën a fës ci bopp xabaar nag dañ koy door rek prison bu Thiès juróom ñetti détenu rek yoo xamante ne nag ci ñoo daal di rek amal li nga xamante ne nag moom mooy ab grève de la faim ni ki suba ci altine ji yemoo ko juróom ñetti fan ci weeru mai ñoom nag li waral boobu leen mbir rek mooy dañuy def ab solidarité ko jëmale ko ci seen leader bii di Ousmane Sonko mi nga xamante ne nag jamono ji Macky Sall xañ ko jant bi la bëgg ko ngir mu bokk ci les élections présidentielles et dibal ñaar fukki fan ak ci février ci 2024 bi nag ki xam mbir mu mel nag di Guy député activiste moom nag la mu ne rek moo détenu yi nag ñu leen tëj tëj boo rek teguñu ko fenn tëju yaamu neex la ndax li nga rek lañ def jamono ji ngir ngir di Macky Sall a am li nga seen àq rek la ñu nekk ak seen yelleef wante nag mbir mu nu mel rek dafa mel ni rek kii di gouvernement bu Macky Sall rek da leen koo xañ tax nag ñu ne ñoom nag ñoom juróom-ñett détenu yooyu nag nee nañ dinañ def ab grève de la fin tàmbalee ko ci suba grève boo xamante ne nag grève boo amul àpp la wante nag ki nga xamante ne nag moom mooy. waa Pastef yooyu nag ñoom nag la ñu daal di xam ne waa rek moo di kii di Macky Sall rek dafa war a xam ne nag li muy def tegul ko ci yoonu ndax détenu yooyu defuñu leen lu dul def solidarité jëmale ko ci ki nga xamante ne nag moom mooy Ousmane Sonko ba tax nag kii di Guy Marius Sagna rek daal di bind rek ab xaatima ngir xam ne ne ñu daal di bàyyi yooyu les détenus rek ñu daal di ñibbi seen kër waaye nag emprisonnement yi nga xamante ne nag ñu leen koy def tegul fenn nag moom Guy Marius Sagna moo daal xamle mbir ak mënu mel xam naa du ñàkk rek dina ci ñëwaat si yeneen jotaay xibaar